baaxul de soxla nga connexion bu day pour mën a suivre li xew Sénégal Macky mi soxla na connexion de Macky soxla nga connexion de mais Macky mi yabaatewul mais Macky moo yab léegi gars yi mbokki internet Tifa 129 HD ginnaaw ba ñu leen nuyoo di am mbégte ak contentement ñoo ko gisandoo ci image yile lii di ndax rectis xewee niki démb foofee ca aéroport bu AIBD ñu goon ko xam ci aéroport international bu Blaise Diagne nekk foofee ca diwaanu Diass niki démb ci guddi lañu fa nemmeeku benn l'accident mu di benn avion dafa daal di raté ab décollage xaalisam ba lu tolloog euh, doomi aadama am fa ay gaañu gaañu tifa 129 yëkkati ay ñaan di ko jéggal li nga xam ne moom mooy di jëm yooyu am fa ay gaañu gaañu sunu borom taxawu leen ba ñu daal di delluwaat seen activité di ñaan tamit li ñu mel yàlla na fi gëj ndax lii mënta ñàkk doomu aadama sunu borom mooy dogal accident saay su nekk bés bu nekk ba tax na li ñu mel yàlla na fi gëj lool lool lool ndax lu mel saay bu mësaan am dañ fi nemmeeku ay jiyee yu metti lool waaye sunu borom wis na ci ndox mu sedd ba am ay gaañu gaañu rek lañ fa daal di nemmeeku ministre bi nga xamante ne moo yor dem ak dikk bi di El Malick Ndiaye euh, li nga xamante ne moom moo di. Euh, ay kàddu yu rafet la fa daal di yëkkati mbokk yi wéy leen di abonné activer kolos notification yi ndax di Tifa 129 information yu am solo képp lay daal di joxe.